2014 da doon sëy xale la sax. waaw ba muy am doom ñu césarienne ko alaaji. 2014 mm-hmm. ba 2018. 2014. loolu du ñeenti at. Mm-hmm. daanaka ñu ngi nii jëm 2019. Mm-hmm. daanaka lu jege juróomi at yoo xam ni xale bi gisul mbaax. diñ ko césarienne ba noppi. waaw ah, loolu nag loolu nag xam naa nag dina jaaxal ñu bari parce que jigéen nag xale bu jigéen xam nga li ma la. Euh, nekkoon ci néegu sëy euh, ba ba am ci benn doom boobu ba léegi gisatoo mbaax. ñenn ñi xam naa ne bu ñu déggee yenn ci tës dinañ ne non lii est-ce que mën naa ne. ah oui. Hmm, loolu nag loolu nag ah xanaa nañ ko def dëgg rek ñu déglu ko. aw aw su meer aca sama problème mooy depuis 2014 ba tey maa ngi nii gisuma fóot affaire bi daf maa métti torop nag moo tax mu ñëw fii aw ma ko may jàppale dama defar césarienne ma jóge ci césarienne ba tey maa ngi nii damaa taxaw te man jigéen laa tollu naa ci sëy looloo tax mu ñëw fii ngeen jàppale ma te yàlla. 2014 ba tey gisoo fóot maanaam indisposé woo gisoo mbaax. gisuma mbaax indisposé ma maa ngi nii dama sonn moo tax ma ñëw fii. léegi nu mu la dikkalee noonu. nu ma dikkalee des fois opéré bi day metti des fois day jam sama kanam. am doom. waaw dama doon am doom. sama amoon nga jëkkër. amoon naa jëkkër waa mais sëy ba tamit presque yàgguma fa un an rek laa fa def nag mais sama kanam bi ma jógee fa léegi sama kanam gi day génnee lu weex tamit. Ah, loolu ay perte la c'est normal mais euh, da nga da nga césarienne pour am doom mais foofu nga jaare mënatoo gis mbaa. waaw foofu laa jaaree mënatuma gis mbaa. du bi après accouchement ba tey gisatoo mbaa. déedéet gisatuma mbaa. léegi dem nga dem naa hôpital waaw su ma demee hôpital ñu ne ma dañ koo dindi dañ ko dëpp yu kenn xamul affaire yooyu daal. dëpp lan xam naa man gëwuma loolu mënta nekk ndax buñ ko dëppoon wala buñ ko dindoon tamit ba léegi kenn waxatu ko sangoo naa suuf bu yàgg. mais bañ koy dëpp pour am doom mais xanaa loolu duñ ko def te duñ la tàggu. ah mooy yoon de normalement waroon nañoo def loolu avant ñu may tàggu. mais def na ay écho. def na ay écho waa. def naa ay écho mais écho yi dañ maa réer xamatuma fan laa ko teg nag. mais luñ la wax foofu noonu. dernier écho bi dañ ma woon dañ koo dëpp ah mooy demal loolu la dañ koo dëpp maanaam pour bañ nga accouché ti xanaa ëmb bi dafa métti woon wala sa accouchement à risque la wala lu xew. waaw dafa métti woon ndax sonnoon naa avant même hôpital boobu maa ngi sañu bu baax. waa ngay accouché. waaw mais waxuñu la sa ëmb bi risque la wala too am doom ay affaire yooyu suñu la ko. non wax waxuñu ma loolu mais ëmb bi moom seetlu woon na huit mois et demi laa amoon nag. ci am doom. ci laa am doom waa mais waxuñu la ne la yow sa biir waratoo bu si naat genre yooyu risque daf da nga ko am ci accouchement wala ci grossesse wala. non non ah, ma lool de xaw ma nag waxaguñu ma dara waxaguñu ma dara. mais xanaa duñu xëy xëy dëpp sa utérus bi sa butitu njurukaay bi te waxuñu la ne la lii ak lii la. ah normalement kay buñ koy def dara dañ maa war a tàggoo ba xam ñu naan ma lii la ak lii comme ça. ma xam ne may féetewoo mais waxuñu ma dara. waxuñu la dara doo xëy rek ñun la affaire bi dëpp nañ ko. waaw dama xëy rek ñu wax man kay kenn waxuma dara sax kenn waxuma dara mais dama toog toog toog toog. mais waxoon na def écho. ah boo ko da nga def école ñun dañ ko dëpp waaw mais man dama toog toog toog presque un mois bi ma après bi ma amee doom noonu toog naa un mois gisuma fóot moo tax ma dem hôpital affaire yooyu ma commencé dem hôpital dina hôpital nag ba tey di nekk mm-hmm. looloo ma fi ñu ah, mais yow de hôpital wax nañ la mën nañ la faj wala waxuñu la dara lu leer waxuñu ma dara lu leer waxuñu ma dara mm-hmm. hôpital dañ la opéré woon sa césarienne bi tamit dellu nga fa dellu naa foofu ki ma fa fekk tamit dellu naa foofu mais médecin bu boobu ñu ma dama koo changé et ça nekkatu fi. kala opéré nekkatu fa. te nekkatu fa. Mm-hmm. loo bëgg loo bëgg nii. parce que xamoon la dal tamit exactement. waaw xaw lu ma dal exactement moo tax ma ñëw fi nag su bëgg ku ma jàppale ci loolu kese. léegi divorcé nga mais ba tey mënoo gis mbaax. divorcé naa ba tey maa gis mbaax. Mm-hmm. loolu la. lii de xanaa ah, kër docteur ndey ndey jaaxle naa ci yàlla. nii laa ah? ba doo mën a tii wasin. waaw too am doom mënatoo jur. Mm. xanaa am na papier yoo xam ni au minimum di nga ko signé sa jëkk sax dafa war a signé. parce que loolu tamit décision la boo xam ne. dañ koy jël à deux. mais moom nee na moom bu dee loolu am na moom loolu yëgu ko de. waaw mais nee na ba mu moom loolu yëgu ko yëgu ko ko demandé ko waaw. mais bu ah, urgence ah. amee par exemple ci table accouchement mën nañ gis ni kat yow boo ëmbatee da am risque nga faatu. loolu mën na nekk médecin en urgence nag dañuy jëli papier boo xam ne dañu lay signéloo yow signéloo sa jëkkër ne yow accepté nga ne dañuy dindi euh, dañuy tourner boutique bi pour yow dootoo amati doom. waaw d'accord. mais mais ah, loolu signature la laaj ba pare. bala quel que soit danger boo nekk dañ lay. même bu dee dañ naan da ngay dee suba tam boo ne buñ bu signé ma tam kenn la. ko <laughs> forcer def la ko c'est ça. boo boo dee ñu ne kon dafa xaru parce que mais lu ko sans informer ko loolu tamit moom moo am moom nee na moom na moom nee na moom loolu kii ko de demandé wu ko de. Hmm. waaye ah, mais nee école loolu la génne. 88 628 89 90. parce que nag lii man man gis nga na xëy na ñu supporter quoi parce que <laughs> non non non xoolal wóor na yàlla foofu ma ne. mais cas yi dañu bëri temps yi. non dañoo bëri. fekk si de alaaj sumer ah, yeeg yooyu bëri nañ de. wallaay lazim ak defante ci wujje gi. non man waxuma sax defante gi ci wujje gi mais. Eh, bon tan yi dal vraiment dal bari na dal bari na de. ni ni ngay songu seen buddu ni ni ngay. Oh. wa lan motax xalé yi aladi hmm. buddu hmm. ci ay famille polygam ba paré ne duñu wujé ragal polygamie est ce que nekul ne. wujje neexul la ñoo leen di expliquer ay jafé jafé yu ñu dund ci biir kër gi. tax ñu bañ ko dund wala ñom dañu dañu bañ euh, euh, euh, bokku firangé leen japp déedéet góor ñi la dé ban la ci góor ñi leen dul wax dëgg ci début ba man dama nan la damay tak allo hein goor ñi la de ah gisoo sa waaja ki nga doon netti dem ci mairie ba taxaw ñun ko loy signé waaw mën ko mën ko bindal gamé rek gamé rek te tok di xaar bu jamono neexee ma yok ci kanam waaw bul poli bu mënu poli gamé jangi ni mënu gamé jangi ni waxal mu ne ko dóoral ma gamé rek après dinaa ko mottal xam nga ni kooku kooku xam nga waxul deug <laughs> waxul deug waxul oh, deug jabar ji de dëgg yàlla kooku problème héritage yu bari alaaji yi ngay gis looloo ko fii indi. Ah. day dem ba dee ay doomam ñi bu xër ñi génne fële. Ah. ñëw ne gaayen sa waay ci lañ. da doon sëriñ su Njaay ci farata yàlla sunu asma mat. Ah. fekk yow signé nga fii ne benn jabar. waaw communauté des biens. te nag kaay wax la benn affaire alaaji. Hmm. police maa fekke la xam de. signature kayit la xam. lu leer laa la wax. ana man mooy takkee jabar man naan ko yow naa bokk ak yow li nga am. waaw moom ak moom lan la am loolu xelum nit allo nit kuy Halo, halo, góor wala yoral sa halo. allo ah. allo allo waaw allo halo, Aïdara waaw salaamaaleykum da nga def waay maa ngi sant yàlla bu wér borom géej waay ça va bien alhamdulilah Mansour waa sang bi ñu ngi ziar an si borom première femme yi ah def yow foo dëkk waaw ma ne jaw benn nga am wala ñaar waaw maa ngi wax yow ah loolu ngeen wax léegi. waaw. man bu mu doon waaj. Mm-hmm. waaw. ilaa yow mi diin dootuñu ànd. ah déedéet waay. xam nga lu tax. waaw. confiance amatu fa. dama mm-hmm. na nga doon liggéey employé rek confiance amatu manque de confiance lay dàqee nga def. Mm-hmm. kenn ba préférence. lii tamit parce que tëdd nelaw déegu ndaw la. mën naa jóg def lu muy. daanaka nga ngank na ko pare. du ko bàyyi. du ko bàyyi. waay. terminé. du ko bàyyi de merci amul leneen la. waaw. Mhm. merci waay. Mhm. aywa 88 629 89 90 mais fii alaaj hmm. fii yaakaar naa ne waxtaan war na fee mën a am de man pour man ndaw si fii daa ngi ko jàppale allo. <coughs> asalaamaaleykum eh, eh, eh. waaw. am na ñoo ngi ziar la magal. yàlla waaw jërëjëf waay. di ziar euh, Chimère ak Mansour ñoom ñi. jërëjëf Chimère. dama jàppale nit daal boo nekkee ak jullit. waaw. Hmm. muy ku góor ki fi jigéen ki. Hmm. boo demee ba xam ni lii mooy góor kii mooy jigéen rek dangay moo ñaaneel sa bopp ni man dama war a am ñeenti jabar bu dee jigéen gi nga xor da war a am ñetti wujj. ndax ba am na lu nga xamante ni jullit moomu ko jullit da ngay def ndax nit ku yow yàlla dafa ñëw takkal ñaar waaw waaw takkal ñeent boo tëlee nag ba mel ni tonton waa ji yéen ngeen def ko force daal nga yem ci benn ndax nit mais jigéen ñi fi mu ne nii dañoo yi naan da ngay takkay bu ah. kenn du ma wutal wuj seen tubaab tubaab lu gi ñu nekkee ah sëñ bi mais sëñ bi mais sëñ bi yàlla tam bul fàtte ne daf ñoo daf ñoo moolaale tamit ak fiir mais fiiraange googu xam nga mooy tey jii yow xam nga yaa ngi liggéey jik sa xam nga ni huit heures da ngay xëy xam nga ni heure bi dangay ngay wàcc hmm. dem avant heure bi doo fa doo fa doo fa nekkee euh, après heure bi euh, euh, ñibbi waaw maanaam loolu da nga koy mooñaaleel sa bopp def xam ni yow alaa kuli ali lii bu amee hmm. ma muñ ko lii bu am xam ni alhamdulilah ma hmm. ma benn tànk waaw kay ah man daal loolu laa xam daal waalo waay wax wax di diju waaye waay wax di sëñ wax fële sa waalo waay wax di diju waay fële sa waalo léeg-léeg sax ñu takkal la jabar bu mu sëy si ñun la ah yow kay keesa wujju la nga faxasu ànd ak moom nekk ak moom. yokk sutura. amiin jërëjëf moo dara ñaan jërëjëf mais nag dama bëgg a xam bañ koy wax ci alxuraan amul àndut amul benn condition. dañ ni takk leen. takk leen bu ngeen bëggee. amul benn condition. bu ñu condition ba. kon nag kon suñu mbokk kon nag suñu mbokku jigéen lañu war a waxal ñoom it. non non non mais non attends takk takk leen ba ñeent nag. bu dee nag mën ngeen ko nag. Ah, non gars yi dama doon laajte condition bi. damay laajte condition bi comme alaaj nee na amul condition jigéen ñi dañu am fulla ci suñu bopp ñun tamit nag. non ñun dañu am tamit. man dama tolloole ak dafa man du ma dem prison ndax benn góor. du ah, déglu rek alaaj. du ma yàq sama avenir ndax benn góor. Uh-huh. te du ma rey sama bopp sama njaboot di taxawaalu ndax góor. ki ñu tiim tàmbalewul ci benn ci ñaar la tàmbalee kon moom yéenee nañu teraanga ñaar ñett ba ñeent ah, alaaj ci boo ko mënee ak mën a tolloole. non non parce que non defal ndànk. fenn man non ala attends attends alaaji alaaji boo ñu waxul fenn man ci maanaam ci saayir. Hmm. ay yor xaalis ak yooyu parce que yàlla mi ngi lay woon foofu ne la man gémmiñ gu ma xar. Hmm. danaa ci def dara merci beaucoup. Hmm. boo déggee ñu lay waxu. boo déggee ñu lay waxuk man ci baatin gi moom moo tax ñuy wax maanaam yow mii waroo nag yor ay soxna ba pare gàddu àq jël aaw bi wala ñaareel bi. mo gëna rafet gëna a nekk xale nga tek ko ci kaw aaw bi diko toroxal ci kër moo fi bari bakari yi alaaji judd la mo fi bari yalla duñu def lo lo xamanteni ni ñu mo fi bari ay bakkar takk ay jabar ku ci nekk nga na euh, mënal bopam sa maam non non non sa maam bi ñuy roy na mënal bopam sa maam mi ñuy roy sallallahu alayhi wasallam sallam da daan wax naan yalla waaw li ma man te tolok def defu nit waaw ma nga ci ma nga ci waye li nga xam nak mom moom ko yow yak mom waaw ya jël ay ko ñap ci man waaw waaw loolu laa la expliqué. ah koo gis na ku ne bu amee ñeenti jabar dina dina am am nafar tiitam. waaw non di nga am am nafar tiitam waaye nafar tiiti gi nag. yow ah, eh, ah. defal ndànk alaaj defal ndànk. Mm-hmm. sama maam kat. nafar titika taxul mu yor nafar titika wax leen ne kii moom la leen gën a di leen dóor ci kaw euh, sox yi. déedéet ak di ko wane. déedéet alaay ku ci nekk ku ci nekk boo weetaan danga naan. punkal mi dee dafa mel ni man la gën a féetewoo. dañuy jéng ba këpp. dégg nga loolu góoru tey. dégg nga loolu waaye. non non non alaaj alaaj alaaj non alaaj. alaaj alaaj alaaj nag mani mani mani alaaj bàyyi li nga inventé. jéng ba këpp la ñuy def nag yaa ngi bëgg lu neex jigéen ña ba fi nekk nag. bëgg la jigéen la sama mbokku jigéen daal yéen laay waxal. bëgg la lan laa fi inventé. yàlla waxu daal kenn du ko utal kenn non defal ndànk rek yow mi nekk tey camp pénal liberté six bii du moom laa ko wax nii defal ndànk rek waaye kooku bu la kenn jaral dem camp pénal liberté da koo jarul sax yàlla yàlla yor xolam yow moom alaaji alaaji xol alaaji sama kër moom sa sa sa maam bi nga xam moom la ñuy roy sa si moom ngeen leen arrangé rek ba mu demee sax ba nga xamante ni bi li li ñuy yaakaar muy suñu constitution di diine l'islam waaw ci ñooñu amoon na ku ko ci jige koo xam ni muy suñu maam daf koo sol a sol ak ni mu ko jige woon ñuuxu ko ba sax dañu woon sax foofu lu leen ump ci seen diine jël leen ko ci ki xuzu nisfu diinakum inda hazihi l xumayra hmm. ah kon kay kon kay kooka yàlla amoon na cër cër bu cër bu ci moom waaye yow nga wax ji bi nga waxee rek sama maam mënal boppam. ci moom la ñuy toppandoo nag. waaw waaw de de ma rek. mais fësal na jeeg euh, non non rek loolu daal moom xam naa ne danaa ca nekk ba sës. ci <laughs> waaye loo xam ne nag maanaam yow loolu yaa ko moomal bopp lu mel ne ay nos sa bakkan. alaaj dama ay sa aaw tey dong. Hmm. mais dama bëggoon ne alaaj dama tout ça da ngay ah, calculer métti bi ki. est xam nga xam ne yaa ngi souffrir loo doomu aadama te yow est-ce que yaa loolu déedéet alaaji non est-ce que yaa ngi dafa laa man waxuma ne mhm. bu kenn takk ñaar wala ñett wala ñeent ku mën takkal dégg nga ma mantulaay dafa mhm. ndax dafa am ay condition nga ne ko déedéet ma ne ko ah kay <clears throat> yow yor sa bu samu ndaw mhm. war na tax yow nga jël ñeneen ñee nga xam ne da ngaa jàpp ne dañoo màgget bombarde leen jël position taxaw ba kooku jànqam bi ci biir kër gi sax alaaj waxuma la moom de am na fi kër yoo xam ne jànqu bu samu ndaw mi ñaareel bi wala ñetteel wala ñeenteel bi sax ah, mooy décidé. parce que Aliou condition nga lan mooy maandu. mais li ci maandu la bokk. Ah, lan mooy lan eh, eh, bu dee mënul loolu yàlla la. non waaye maandu yow laa wax. mais bu maandu maandu na. oustaz xam na li ma wax. maandu mat na li ñuy wax année scolaire lépp nga koy jàng. ci mu xarar ci année boobu noonu. ngay jàng maandu kese ci néegu sëy. waaw d' accord d' par exemple bu bu ñu nee. Ah, ñeenti jabar laa am. waaw kenn ku ne tey guddi gii laay fanaan ci yow. waaw xam nga yaa ngi ah, maandu. mais ci ñoom. Ah. yàlla nga ci kenn koo xam ni. waaw. tubarkal la ñu baal ma ci kaddu gi mais dafa saay saay waaw dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg la la man dëgg dëgg loolu kaaw léegi nga ci ak koo xam bi metti na ah, ah, am la xamul dara yam metti na takusan du sangu du amul jal jal amul lenn du cuuraay kee yàlla nattu la ci ba nga xam ni bu takusaane yow yow da ngay dañal waaw tubarkal la waaw waaw ne bu ngeen bi waaw da ngay teel tëdd sax. ci def def ndax maanu maanu mën na am. am nañu ko dundee am nañu du loolu de. maandu bi eh, alaaji maandu bi fi nga génnee maandu du foofu de. ci la bokk de non non la bokk. alaay xol bi mën na jeng mais doo ko fësal. foo eh, déglu ma eh, man soo bu muy joxe ah. explication maandu bokkul de. ci la bokk non defal naa rek. Mm-hmm. alaaj ci la bokk defal naa alaaj alaaj. stade yi dañoo bari te wuute. yi ay synthétique la yi teeree ñax yi sablo na teeri suuf comme ñu ni ñuy footballé match dimanche dégg nga <laughs> ba waaw gannus ki très bien am ci yoo xam ne terrain basket la ñuy dem difa fa football ak ñoo xam ne comme waa Medina seen rue yi la ñuy footballé amuñu amuñu bayaal pavage yi dégg nga ak ñoo xam ne ci pavage yi la ñuy football waaw terrain yi dañoo bëri te wuute mel lamb ni rek arène bu nekk nga. nangu na arène Doudou Bakhsa. nangu naa waaw ñii stade Iba Mar. arène nationale ñii ne li ngay fubale ci paa eh. ma. boo appliqué yëpp ci lay bokk. déedéet déedéet bi rek. war a souffrir loo doomu aadama di ko fësal di ko wan doo dara ci kër oh. looloo bon. boo footballee ci terrain bi. <laughs> waaw nga xam ne ñax la. Ah. Mm-hmm. mais waroo xëy dem ci eh. yor terrain. Eh, palaas naan mais war na Oustaz Alioune Sall. ah non j'ai pas dit ça. waaw kenn dem ba 10 heures. Saliou Sall mooy départage. mais maam kaay jël numéro Saliou Sall. Eh, maam Sidi Ka man nangu naa. waaw déglu ma Alaaji nangu naa moo Ousa Alou Sall mu fi ah, Alaaji jugee ah, ah, lay waxee. Alaaji bi non non Alaaji eh, waxtaan bi na de mais Alaaji ma d'accord ak yow de. ah non déglu ma déglu leen sërif bi daaneel. yaa ci dëgg dama ne ko. Ah. mandute gi. Mm-hmm. boo footballee ci terrain bu am ñax. Mm-hmm. wala synthétique. Mm-hmm. wala terrain bu am suuf. xam nga wax. nga football ci bu am ñax bi mu gën a nooy gën a neex. ga xëy ma woon Oustaz Alioune Sall. dem ci kii football ci terrain synthétique bi di ko xas. mandootoo. waaw waaye yow la sa football rek. waaw kay. alaaji ba ma si li jeexee. jug sangu ba set. soo <laughs> taal oto dem. ah, ah, ah. ba neex. ah ah, eh, ah mais football ci euh, Amadou Barry Guèye. waaw ñu jékki-jékki yóbbu la ci pavage. waaw bu la neexee nga ni aussi doo football abandonné na boo maandoo te doo ko wax. boo boo maandoo te gore doo ko wax. doo football par force. boo maandoo te gore wallaahi doo ko wax. alaaji yaa ko sombi yaa ko. wallaahi boo naan maandoo te gore oh, kon nga bàyyi ko mu def. alaaji li ci jigéen ju xayal nga bàyyi ko mu def. li ci jigéen ju xayal jigéen aw ñàkk a sangu. alaaji nga ba ko mu dem mu dañal la. alaaji nga ba ko mu dem. Euh, loolu lépp bu ci amee woon ko supporté ba ko mu dem. kaddu tëj buntu. Hmm. wuy ma kaddu dañ tëj buntu day takk góor xala xuma li xam xam nga limay wax ni kaddu tëj buntu te yalla buntu fu seud am na kaddu gu caabi ji da demé day tak go xala ci kaw lal waaw jukkee aaw mais nga am fu lay ne ko alaaji alaaji alaaji sima wóor ñu wóor sama mbokk jigéen ñi yéen laay waxal gis nga keroog dañ naa benn pax asalaamaaleykum rahmatullah aleykum salaam wa rahmatullah wa barakaatu suñu xale suñu soppe allo allo oustaz réseau bi la de mu ñëw asalaamualeykum wa rahmatullah allo. oustaz est-ce que dé oustaz rajo. ah est-ce que oustaz euh, dénut ak rajo. non non bokkul. dé dégg nga ci kito. nee na même terrain yi ñuy tiitaroo di terrain gazon yi sax ñax ñax mi. ci sax sax bokkul. waaw ñax mi sax bokkul. bokkul ñax mi gazon yi sax bokkul. amitié barki démb lañ ko doog a defaraat. par rapport ak terrain bi Sénégal doon footballé contre Pologne ci coupe du monde. yàlla xam na ko même terrain ñax yi bokkul. waxantuma ak yow nga bëgg a dëkkale kuy football ci synthétique ak ñax wala kuy football ci kekk. alaaji. mais teew ca yaa ko somb yaa koy naan asalaamaaleykum wa rahmatulah. Ah, salaam wa rahmatulah. yaa oustaz. Ahmed maa ngi lay ziare waay. waay sàll suñu xarit suñu soppe. tey de yéen ci débat dëgg nag. non gis nga waaw. kookoy oustaz Alioune Sall ah, bu Sud FM oustaz. waaw Mansour Diop mii tey il faut réew mi dégguñu. Mm-hmm. parce que ni muy yéegee aaway aussi parfois. Mm-hmm. ak li mu fi bëgg indi ne maandu te dëgg la maandu la wax. Mm-hmm. waaye nag man ci li ma jàpp oustaz. Mhm. mënoo football ci stade boo xam ni dafa rafet nga dem footballaat ci beneen stade boo xam ni lu yàlla xam doy na nga génn di ñaawal kële yow koy football nga ci ñaar yëpp kay. Mhm. léegi neel pat rek. yow xam nga li nga xam voilà. waaw dafa am ñaari ngeen di waxtaanee te wax jege. waaw. benn bi mooy maandu benn bi mooy nopp. <laughs> lay ma la ko wax. yàlla mu ne na ngeen maandu. waaw. waaye muñ leen yemale ak nopp. bu ci nekk ñaar ñaari ay sore wuñu dëgg la dëgg la dëgg la fee daa wax ne wayn xiftum allaa taajilu fa waahida uh-huh. bu ngeen jàppee ne bu ngeen takkee lu ëpp kenn du ngeen maandu yem leen ci kenn. Ah, condition baa ngi noonu. déedéet bàyyi mu noppi de. condition baa ngi noonu xam-xam day continuer rek. waaw bi mu ñëwee ci nopp nag mu ne wala tastati'u an ta'dilu bayna nisaa walaw harastum. wala harastum waaw. mu ne la mu ne la yemale ak nopp lu ngeen lu ngeen lu ngeen. xëy xëy ba koo <laughs> yemale. wallaahi. waaw kooku du ñun nag. waaw waaw te waaw góor léegi nag mooy fi ngeen di da ngeen di suñu ci biir di ci ñaar yooyu ci ngeen ci ngeen nekk nag moo tax mboo moytul ngeen déggee yéen ñaar du yomb juboo <laughs> waaw oustaz waaw waaw oustaz euh, euh, sëy uh-huh. euh, luy luy base ba du du du nobel laa tax muy am ah bu jaaxle beneen ko ma wadda wa raxma wa waaw waaw ci ci jéeg nga nopp nag bu ci ma wadda ku ci ëpp ma wadda oh, oh, oh, raxma ñaari occupé sab xol du a yomb ca mooma. waaw waaw foofu mooy Nobel gi moom bokkut ak fële lale. Mhm. waaw mooy Nobel gi si Mansour. mais waaye Nobel googu oustaz amul amul amul amul daa de amul amul amul amul de amul bàkkaar de. Euh, mënu bu ko bu ko amee àdduna sikki ndax suñu borom ne mënu leen na am maandu tegi nag oustaz mooy. maandu tegi oustaz. maandu tegi mooy maandu tegi mooy bul jóge fel di nekk la xew bu ko nekk. Ah. waay yow waay yow jeng. non non fële di nettali fële. déedéet déedéet kee poj. déedéet déedéet déedéet. Oustaz nga fi ci jamonoy day nit day mën na aaye ci ni te moome waaye mën na moome te du aaye. waaw xam nga moo moo moomeeg fegal ay ay yëf-yëf yu bëree bëri yoo xam ne moom man naam du xaj ci jotaay waaye daal. Uh-huh. <laughs> Euh, nit ki daal na fexe ba. Uh-huh. ay ayam tolloo. waaw kay bu defee fii ñaari fan na def fee ñaari fan waaw oustaz bàyyi ko bàyyi ko bàyyi ko waaye mën naa def fii ñaari fan fee muy def ñaari fan mën na faa dem te duñ ko fa sant dara waaw mën na faa dem te duñ ko sant dara buñ ko sant dara suñu borom ne ko toogal ba di sant la ko wala nga sant ko yëg sant ko yow oustaz am na cas bu xaw a critique foofu nag lool man man so man soo Diop buy liggéey fii Ndakaaru nekk feeg bu sama ndaw léegi awa bu njogaan bi nekk fële fu xaw a sori nga xam mun na fay dem chaque jour Mhm. ah foofu foofu itam na bu ma bu ma bëggee bu bëggee yemale fan yi dana compliqué de. waaw loolu loolu consensus moo koy doxal rek. Mhm. waxtaan ba jubóo. <laughs> waaw ba mën naa xam ne léegi def sangam borom kër gi dana fi ñëw su ñëwee nangam nangam loolu buñ ko cee saxee dëppoo rek dina baax u soob yàlla. Euh, gis nga oustaz. <laughs> waaw. <laughs> man sóor mi oustaz damaa jàpp ne daal xam naa ne da di sa mbokk nga koy nga koy nga koy nga koy nga koy raay raayal. dee wallaay. ok ok oustaz. oustaz yow xam nga yow oustaz yow ah, yow yow sama soppe nga waaye man sóor mi wax gi sànq dëj nga ko rek. mooy wàllub. Euh, euh, mandute gi ak nobel. man loolu laa ko wax nee naa ko am nga sañ-sañ. dem fii ñaari fan dem fee ñaari fan diine sant la ko. waaye amoo sañ-sañ nag génn na xamal ñëpp neleen leen sama bu sama ndaw mii du ma doon fàttu rek. loolu du maanute loolu de. waaw loolu laa tuddee man maanute nag. lay xew fee doo ko waxtaanee fii lii xew fii doo ko waxtaanee fee. waaye waaye oustaz boo boo demee boo demee boo demee ay ca kee. waaw tàmmalu la tàmmalu di la pomp la pompe la koloñ. waaw tàmm ci koo xam ne saa booy génn mu pompal la lat koloñ waaw ndax amaana yegg na ci nga ne ko bul ma pompal lat koloñ ndax kee du ma ko pompal ah déedéet déedéet waxuñu loolu la sa néeg ba kay bul bul tudd kee bu la bu la pompalee waaw yemal ci sa pompal te xam na sa lat koloñ neex na ba demee fa bu ñu la pompe si bul ne dañ lay pompal sa fii di ma pompal <laughs> maandoo ngoog de maandoo ngoog de. <laughs> kontaan nañu waay Sall. amiin amiin yàlla fay la Sall. yàlla yàlla def Sall amiin Sall amiin Sall amiin Sall. amiin waay. maa ngi lay fay bu baax Sall kontaan nañu bu baax Sall. man kay li ma wax. <laughs> li ma wax. bilaay ko topp maandu ko topp maandu de. ma ne li ma wax ayu la la wax. Eh, Sall de. waaye yaa ngi ñëw yàlla na ko yàlla.